ngir ñu respecter wàññite prix yi dafa mel ni fii ci Kër Massar ñu bari ci commerçant yi respecté guñ ko gérant boutique bi fu mu nekk ni mu ngi jaay kilo sucre six cent cinquante mu ci indi ay explication moom ñu ni jënd moom mais si beneen arrivage bu ñëwaatee moom day fekk li ma jënd jeex après ma jëndaat su ma jëndee mun naa jaay six cent ndaw si moom di jaaykat nee na fu mu nekk ni gisul benn wàññite lu jëm ci wàllu diwlin sucre wante li nga xamante ne moo di mburu mi am na wàññite. ah mburu mi daal wàññi nañ ko waaye ceeb ak ak yooyu ñun de gisaguñ ci suñu bopp dégg dégg nañ ko nag ci rajo ak télé waaye gisaguñ ci suñu bopp. naam wàññi njëg yi lu ñu rafetlu la. waaye ngir mu am euh, durabilité nguur gi dafa war a miser ci li nga xamante ne muy mbay mi pour mu atteindre la souveraineté alimentaire mu nekk xalaatu sëñ bi. mais man en tant que doomu baykat dëkk fu ñuy wax boqal euh, engrais bi ñuy wax buñ ko buñ ko wàññee. nee ñu wàññi nañ ko nag buñ ko nit ñi buñ ko baykat di jotee bañ subventionné ko carrément ba ñëpp jot ko. autosuffisance alimentaire am nit ñi di bay nawet ak noor loolu moo mën a soxali réew. mu mel ni de mesures yi nga xamante ne euh, dañ ko tëral ngir ñu respecter wàññite njëg yi dafa mel ni fu mu nekk nii jurugul ay résultats yu ñu doon xaar gannaaw une semaine bi nga xamante ne mesures yi jël nañ ko.